mbokk yi Kigelia africana moom la ñuy wax dambal muy plante bu am solo di sax fii ci réew mi waaye di sax ci yeneen i réew solo bi mu am mooy garab gi ci boppam meññeef bi fruit bi la nekk ci biir di ay principe actif loole soo ko tëggee boole kook li mu war a àndal jigéen ji di ko diwoo fi mu ko war diwoo fu mu romb fu ne ñu xam ne li muy diwoo baax na loolee nag dafay baax nag nga teg ko ci xam-xam xam-xam gi mooy nga daal di jël karité bu baax bu bio nga jël li nga xam ne moo di graine ak pi bu baax bu bio boo amee poudre bi tamit moo di li soo amee tuuti màkka def ci waaye rax ci dolli soo amee petit cola tuuti nga aromatiser ko jël li nga xam ne moom moo di rek fenugrec graine rek nga daal di ko tëgg boole ko karité bu bio bi. su boobaa nag nga daal di ko defar defar goo xam ni daanaka nit ki mën na ko di jëfandikoo la matin ak le soir di ko def massage boo xam ni day doon juróomi minute ci cër yu mu bëgg. su noppee su génnee dinañ xam ne lu muy jëfandikoo baax na ndax yaram élastique la boo ci defee lu baax lu ne mu wane boppam ak ma saa su ne dañuy gëstu lu baax te du am benn gaañ jëlal